jaaxle moo fi jeex ba faw lépp lu ngeen itéwooti ngir seen i chambre mu doon ay meuble mu doon également seen intérieur de chambre ngeen bëgg décoration intérieure lépp lu mu mën a doon jàppaleen Natou Déco Kër Serigne Khassim moo ngi si Sicap Foire Tali Koramak chez Momi Natou dama ni avec Natou Déco vous aurez la chambre qui vous ressemble waaw fii la décoration fekk baax mu doon seen chambre à coucher mini salon ngeen bëgg ay moquette moquette yu dëgër am design rafet loolu bari ay motif ay table à manger wala sax nag ay console décoration mural ya descente de lit ba si ay lampe ventilo bluetooth ah na tuddee ko mii de ku doon wër lu baax te si woo fii baa nga sa loxo ci ay descente de lit ay vase table à manger tête à tête ay salon rotin balançoire salon à cuir nga xamante ni liggéey bu sell am design ah na tuddee ko mii de li ngeen bëgg moo leen koy jox nag xoolal ma bile salon Louis XIV tey lii waaye nag moquette royale ba lii moo assorti am nañu table à manger marbre chambre à coucher turc saoudite tey lii lii ci ay table basse ay table tale ba si ay drap de ñoo ngay nag dugg ca biir nee ba jàppal mbokk mi sunu ay lampe de chevet amul fenn bu ngeen bëggee nag ay cuuraay cuuraay yu neex ay parfum oud ay adab nekkate nag fii mooy barabu yëpp jeeg ji jànq ji jóg maax ji jàpp leen vous avez une idée pour bien décorer pour une décoration réussie Natou Déco Kër Serigne Khassim Sicap Foire Tali Koromak c'est le coin des VIP boo fi accès doo ko والمهتدر معصوم من الأنعاء الخضر نفع لخير جهة ما ساء كابن كوان كل ما أساء فردت خير الخلق تفريا يدوم إني لأخل ويبد وخديم يسر لي خليل ما تأثر على سوى لي وتفسر كرما يا كريم والمكرم وخاذلي بذكري المكرم وأوتي مساني كالكدي والتارك مع سكوني كرما يا كريم والمكرم وخاذلي بذكري المكرم وأوتي مساني كالكدي salaamaaleykum suñu mbokku téléspectateur yu ñuy bàyyi xel ci suñu télévision académie Minane ñu am mbégte ak kontaan te ñëw teew fii ci Porokhane comme ni ñu ko baaxoo defee tey ñu ngi fii nga xam ni moom moo di marché bi am yéene gëstu li nga xam ni moom moo di commerçant yi waaye ak seen. tolluwaayub liggéey waajtaay bi ndax xam nañ ni jamono ji ñu bari ci jaay jaaykat yi ñu ngi jóge fu nekk ngir ñëw teew si fii ci marché bi ngir waajal màggalu poroxaan gi loolu la ñu am yéene e, dégtal leen ko ngeen fas koo yéene ànd ak ki nga xam ni mooy soxna jaara ak sama caméraman bi nga xam ne si moom moo di fàllu ñu ànd dugg ci biir marché bi xool nekkinu commerçant yi ci jamono ji. waaw soxna si niñ koy dundee comme niñ ko daan dundee rek parce wàccaayu màggalu Poroxaan bi ren xam nga ne daaw moom dañu ko annulé woon amutoon kon nag ñu gis ne ren ji euh, taalib yëpp dañ ñëw incha allah màggal si Poroxaan incha allah. kenn ñëpp xam ne ne maam jaara woote te su maam jaara wootee moom àddina ñëppee ñëw. parce que foo dugal sa loxo mu neex da ngay ñaan yàlla nga tolluwaat nga defaat ko fa te daanaka boo xoolee noonu lañ koy dundee ñun. waaw parce que da nekkul ne la première fois nu ñëw màggal poroxaan yàgg na fi ñëw wax dëgg yàlla macha allah ñu ngi gis suñu bopp macha allah moom bu fekkee la yàlla bëgg moom ku ñëw mu neex moom da ngay ñaan yàlla ëllëg nga ñëwaat. ñun ñu ngi jógee Tiwaawan ay taalibe Cheikh lañu. isaan yi ñu ngi jógee Dakar ak tuuba a ah, ñu de dañoo jógee Touba rek man soxna Ami Saliou Dóor waar borom ñetti njël yi ñëw jaay si Porokhane. ñëw fii euh, pour màjjal si daal. waaw ñu nag lépp li sëñ bi digle moom ci la dox. waaw lum tere ñu baloolu. dëkkuñ ci dëkk bi waaye niñ def ba jot ci place yi mooy dëkk Soxna Jaara fii moom ku fi soxla loo fi waaye soxla lu ne rek muy lu baax mu jëm ci wàllu daan doole euh, Soxna Jaara dina la ko yombalal ba nga mën cee jot. waaw place yi moom daanaka dañ fi am njaatige yoo xamante ni daanaka macha allah moom dañuy da ngay woote téléphone rek ne ko place laa bëgg rek mu ne la amu problème boo ñëwee loo teg ci njëgu gura bi mooy noonu. affaire daa amul solo wax dëgg yàlla macha di rafet tam ñin fi fekk moom. waaw dañoo nekk ak suñuy paa baax rek ñu ñëw ñu yaatal ñu jox ñu ko. Eh, place yi seer na de mètre ñaari junni la ñu jaay diggante bi ñeenti junni laa ko jëndi lu toll na bisu soxna jaara bu sa fi war a nooy neex ñu gis ci suñu bopp affaire yi metti lool xam nga loolu jaaduwut. Ah, maanaam le clémentine am na noo koy jaayee du day metti doo ko mën a yokk prix normal nga ko mën a jaayee pomme bi 100 francs lay jar 100 francs nga ko mën a jaay paas bi seer na place yi seer na ñoom kay ñooñu waroon a defal xéwalu soxna jaar rek ndax soxna jaar moom ku ko gisul tamit dégg nga ko ku ko xamul tamit dégg nga ko a soxna jaar soxna si place bi moom mooy place bi nga xamante mën nañu ne matale lépp yombul waaye daanaka fii moom dañoo matale dañoo xarañ tamit ci li ñuy def doon ay ndaw yoo xamante ne daan doole rek moo ñu tax a jóg waaye xam nga ne tissu ku ko wax ku ne ku wax rideau xam nga ne rideau boo ko jëndee boo paree di nga laaj couture eh, couture moom mënu cee ñàkk moom moo waral bu ñuy ñëw dañuy complet non loolu moom duñ ko yokk moom xalaatuñ ko sax parce que bu Touba wootee Kasaaleka dañuy dem bu Tivaouane wootee ka nekkoon dañuy dem xam nga Njaasaan kook Koki fu nekk dañ fay dem. ñu fas yéene siq client yi mooy ñu nooyalal leen ko comme que jamono ji moom ñëpp ko gisandoo ni mu mel corona beeg lépp affaire yooyu yëpp jaar na fi jàll. kon il faut ñu nooyal prix yi ba nga xamante ne kenn ku nekk boo ñëwee rek la nga tollal incha allah dina jàppandi pour nga mën cee jot. mais suñu demee tam tombé na nag bu fekkee ne comme vaisselle bi ñoom xam nga dafa xaw a seer léegi. waaw moom moo tax mais client itam comprendre na xam na ne ma bagage léegi léegi lépp a seer leen lu yombatu Sénégal mais du tee tam ñun ñu ngi koy def xéwal daal wax dëgg yàlla moom dinañ koy yombalal moom. képp ku fi ñëw ku ne daal li nga tollal incha allah dinañ la ko nooyalal ba nga mën koo yóbbu incha allah. client yi macha allah ñu ngi ñëw ndànk-ndànk benn benn moom mais xam dina baax incha allah ñu ngi am yaakaar daal. ñu ngi leen di jaajëfal ci safoo ngeen safoo seen télévision académie Minane mbokk yi loolu lañ leen doon jëlale fii ci marché bi nga xam ne moom moo di marché Porokhane gis ngeen commerçant yi seen teewaay waaye dégg ngeen tamit seen ay kàddu mu mel ne nag ñu bari ci mbokk yi nga xam ni ñoom ñoo ñoom ñooy jënd ak seeguñu waaye ñi nga xam ne ñoom ñoo fi jot a nekk rek ak lu mu new new ñu ngi ci waajtaay bi ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di jaajëfal Serigne Fallou di leen jox rendez-vous beneen yoon ki suñu beneen numéro reportage du jour jërë ngeen jëf jaaxle moo fi jeex ba faw lépp lu ngeen ittewooti ngir seeni chambre mu doon ay meuble mu doon également seen intérieur de chambre ngeen bëgg décoration intérieure lépp lu mu mën a doon jàppaleen Natou Déco Kër Serigne Khassim moo ngi si Sicap Foire Tali Koramak chez Momi Natou dama ni avec Natou Déco vous aurez la chambre qui vous ressemble waaw fii la décoration fekk baax mu doon seen chambre à coucher mini salon ngeen bëgg ay moquette moquette yu dëgër am design rafet loolu bari ay motif ay table à manger wala général ya descente de lit ba si ay lampe ventilo bluetooth ah na tuddee ko mii de ku doon wër lu baax te ak si woo fii baa nga sa loxo lii ci ay descente de lit ay vase table à manger tête à tête ay salon rotin balançoire salon à cuir yi nga xamante ni liggéey bu sell am design ah na tuddee ko mii de li ngeen bëgg moo leen koy jox nag xoolal ma bile salon Louis XIV tey lii waaye nag moquette royale ba lii moo assorti am nañu table à manger marbre chambre à coucher turc waaye chambre à coucher chine bàyyi ko mais également Arabie Saoudite tey lii lii ci ay table basse ay table télé ba si ay drap de ñoo ngeen nag dugg ca biir nee ba jàppal mbokk mi sunu ay lampe de chevet amul fenn bu ngeen bëggee nag ay cuuraay cuuraay yu neex ay parfum oud ay adab nekkate nag fii mooy barabu yëpp jeeg ji jànq ji jóg maar ji jàpp leen vous avez une idée pour bien décorer pour une décoration réussie Natou Déco Kër Serigne Khassim Sicap Foire Tali Koramak c'est le coin des VIP boo fi a rëccu مقتدرا معصوم من الأنعاء الخضر نفى لخير جهة ما ساء كابن كواني كل ما أساء فردت خير الخلق تفريا يدوم إني لأخل ويبد وخديم يسر لي خليل ما تأثر على سوى لي ودا فسر كرمني الكريم والمكرم وخاض لي بذكري المكرم ومتيع مساني كالكدي وجل تاركي مع سكوني